yéen a ngi sen sen seen Rewmi 24 TV. salaamaaleykum uh, patriotes yi donc uh, docteur Cheikh Dia donc ñëpp uh, xam nañ ko moom lañ ci joxoon mu jiite ONAS

président Ousmane Sonko seetul ñu maanaam politique taxu ko jóg maanaam gars yi dañuy fal nit daal ni kii de booy suñu allié la buñ ko wàccee fii nangam nangam di xaar ay électoral loolu gars yi seetuñu loolu gars li ñu yor ni yàlla lañ ciy seet seetuñ ci lu neex doomu aadama lu neex diw mais yàlla la ñuy seet ci li ñuy liggéey jub jubal jubanti bi ñuy waxantu ni ku yaakaar ne ay caaxaan la jomaay mooy sonk bi ko yaakaar ne ay joxaan ay jaaxaan la gars lu ñu gëm la te loolu la ñuy doxal ko bokk ci parti bi ci bokk képp koo xam te ni def nga loo warul def gars yi nañ sa ndigg ça c'est sûr et certain yi dañuy ñëw pour servir askan wi ñëw ñu pour se servir doote pour pour pour pour seen bopp taxulee na jóg donc euh, docteur Cheikh tay ji nga journaux yi bari bind nañu ha ah. amna journaux yi bind ñu ni donc euh, dafa am ño xak ko xamanteni daf ko jox auto manam bi mi ñew biñ ko falé daf ko ñew seet si jox ko auto bi jaar 80 millions pour neexalé comme gaay ni ñi def rek dugal dara pour après di gagner ay marché ak yooyu gagner ay marché ak yooyu noonu am na ñu nii dafa fekk benn oto buy jar quatre-vingts millions def ko ci turam xawma te Mamour Diallo am na journal bu bind lii journal bu paaw jaaxaankat boobu mu ni Mamour Diallo ba fa ñëwee voiture de fonction bi ak kër sax nangu ko jël mais Mamour Diallo lan lay doyee voiture de fonction ak kër Mamour Diallo li mu yor ci xal alalu askan bi lan lay doyee voiture de salaire sax lan la ko Mamour Diallo di doyee donc li journal ci caaxaan képp la nek donc ñu ni euh, gaay wax lu yooyu mais nak apparemment yooyu yëpp dara amu ci apparemment ci ay affaire euh, marché marché Onas ñëpp gis nañu onage mi ngi liggéey ah. franchement Cheikh docteur Cheikh Dieng bañ ko joxe ba légui moom buñ ko wàccee wuñ ko ndax liggéeyut ça c'est sûr et certain parce que ñëpp a ngi teg seen bët. ku dëkk ku dëkk képp ku dëkk biir Dakar li ko wër yaa ngi liggéey bi ONAS di liggéey loolu moom wàcce wuñ ko parce que liggéeyul mais ci li ñu dégg dañ ni ay ay marché yoo xamante ni niñ ko joxee jaarul yoon ay marché yoo xam jaarul yoon ak euh, ay ay surfacturation ci marché yi ay yenn surfacturation donc loolu la ñu déggagum te bon am na journaliste bu mag Babacar Touré neen dinañ def live léegi nii ñu taaxul live mais man ci li ma jotu dégg yooyu la te gars yi loolu moo lay wan ni ñii loo nekk nekk seen xarit boo defee loo war def ñu rëq sa ndigg jubal jubanti bi ñu nekk ci lañ ne xaaruñu ëllëg noo kii boo ko wàccee am na électorat fii wala nit ñi dañ ni ah yéen falu ngeen barki de moo jaay commencé di wàccee waate lii ak lii ak lii seen yoon nekkul ci loolu ñi réew mi moo leen tax a jóg askan wi la ñuy xam nañ bu baax a baax a baax a baax lan moo leen fal